doon wax yokkum salaire ñu dagg ci sa budget huit cent millions ndax yow di nga mën a yokkati bu fa salaire nekkatul kay doo xalaat a yokk da nga naan siiw salaire bi mucc donc ñu ngi interpeller le président Macky Sall barki Dembo Ndiaye wax na ci collectivité locale yi kuy wax wax yokkum salaire salaire daf fee ne bu fi salaire nekkul kenn du ko yokk beneen bi mooy li may dolli tuuti ci sim mooy mbay soo wax na ko. nawloo nañu leen li muy def sant nañ ko ci ku ci jotul itam sa mbokk jot na ci waaye dafa am nu mu gënoon a rafetee ndax diiru 1948 ba suñu jonn yàlla tey amul benn édifice amul benn tali amul benn école amul benn poste de santé bu ñuy wax ne lii so ko si ma ko door moo ko yeggale amul yana pa amul kon bu DG toogee dëgg la ñun Sococim li ko mbay soo wax dëgg la xuloowuñu ak agent ya fa ne xuloo xuloowuñu ak Sococim jotewuñu dara mais dafa toll ku toog ku am droit toog wax ñu am droit mën laa tontu nee na joxe na vingt huit milliards vingt huit milliards yi mu joxe ci Tëngéej gisul xar kanam Tëngéej sansé dëgg la am na duñ ko ko weddil waaye moom bu xoolee depuis bi mu fi nekkee 28 milliards yi ci kaw quinze ans la ko wax de. ko 2006 ba mille 2022 waaw 26 milliards yooyu mu joxe moom ñaata milliards la amassé. 48 de bénéfice ñaata ñaata masse la amassé muy bénéfice am.